justice bu Sénégal ndax amul confiance ci moom te saa su ne da koy teg ay daan yoo xam ne politique dong moom moo ko waral ba tax na ñëpp gis nañ jamono ji ay ndaw sax yoo xam ne ñoom ña ngay dem ca buntu kër Ousmane Sonko ngir daal di koy taxawu ne dañu koy protéger ngir képp koo xam ne ñëw na fa ngir daal di koy jéem a jël si ñoom ñu dox seen diggante lu ni mel nag moom procureur Alioune ndaw mi nekkoon ca CREI yi la dina koy xamle ca ndaje ba amoon ca place de la nation F24 dal woon koy woote ngir ñu waxtaanee lépp candidature ak troisième mandat bu président Macky Sall bi nga xam ne ñëpp dañoo njoxtu ne moom la bëgg daal di def lu ne mel nag nekk na loo xam ne mën naa jur ay jafe-jafe yu doy waar ci réew mi bu fekkente ni Ousmane Sonko dañ koo forcé daal di koy arrêté ngir yóbbu ko mu wuyu ji ca kanamu justice. ba mënul juraat ay manifestation ci réew mi lu ci mënti am le 16 yàggatul lépp dina daal di leer moom résistance la daal di woote ay ndawam itam dal di ko ci wuyu si ne lépp loo xam ni Ousmane Sonko joxe na ko comme ndigal dañ koy jëfee dañu koy woyee ndax moom dong la ñuy daal di topp beneen wàll wi mooy li nga xam ni mooy situation jamono jii bu Ousmane Sonko ma nga ca Casamance bañ naka sax ba gisuñu ko ci manifestation bu F24 bi El Malick Ndiaye la daal di yabal fu di mujjee ak gëtam équipe bu AGT News dinañ leen ko toppal ngir saa su ne ngeen ci am ay xibaar yu wér te wóor kon abonné leen ngir dara bañ leen cee raw AGT News